Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. asalaamaaleykum chers internautes bu Reubeuss TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar. di amaat mbégte bu baax a baax di jàkkaarloowaat ak yéen amaat mbégte tamit di bokkaat ak plateau bi euh, sama mag sama xarit euh, Youssou Fall Youssou nuyu naa la rakk ji fay naa la am mbégte bu baax a baax jàkkaarloowaat ak yow waaye am mbégte bu baax a baax jàkkaarloo ak yéen ñi nga xam ne yéen bàyyi xel seen chaîne YouTube Reubeuss TV seen émission bi nga xam ne mooy toj toj comme ni leen ko waxee saa su nekk rek moom toj toj fépp moom rek daañu dem jëli ko andi ko fi euh, tasaare ko waaye ci kàllaamay Kocc Soxna Xadi comme ni mu leen ko waxee rek ñoo leen ko digoon te ku nekk nag xam na ne jigéen boox la te ñàkk koo defee woor la ba tax na duñ tàyyi benn yoon lépp loo xamante ne nii euh, toj-toj la mu xew fii ci réew wala biti réew aussi nañu ko andi andi ceeg yéen parce que tamit ci Reubeuss TV. ci Reubeuss TV lay xewee ba tax na jigéen boox ko jëfe tamit woor la waaye dama naan coow dem ci dëkk bi nga xam ne mooy Saly Saly nag la am mu nekk lu yéeme benn soxna boo xam ne moom Suisse la dëkk waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko def euh, ñaawteef nekk ay sénégale jël ci moom lu toll ci juróomi million ci suñu ay koppar ba tax na li nga xam ne mooy takk der yi ñu ngi def liggéey bu solo ca ca jëf joojee su ma jógee foofu rek damay dem ci dëkk bi nga xam ne mooy Linguère digganteem ak Matam soog bu metti moo fa am ba am ñaar ñu ci gaañu gaañu metti waaye tamit am ku ca faatu su ma jógee foofu rek damay dem ci dëkk bi nga xam ne mooy Nioro Nioro nag la fa am mu nekk lu yéeme lu day waar ci li nga xamante ne mooy xeetu yàmba jàpp nañ fa nag lu toll ci juróom fukk ak ñeent ci ay kilo maanaam boo ko xaymaa ci suñu ay koppar mi toll ci juróom-ñetti millions mu nekk lu doy waar lu yéeme su ma jógee foofu rek damay dem ci dëkk bi nga xam ne mooy Diourbel Diourbel nag la am mu nekk lu yéeme lu doy waar ci maanaam euh, benn soxna boo xam ne moo doon joteeg benn dëkkandoom ba jëkkër ji ñëw di ci àtte waaye daal la mujjee euh, maanaam daal fa crise cardiaque ba ñàkk kanam mu nekk lu doy waar waaye li gën a doy waar nag ma nga xawee fay ca Mbàkke ci quartier bu ñuy wax Xayra ci benn kilifa goo xamante ni moom nag dañ doon am ñaaw njort ci moom ne day jaay yàmba wala da koy tux ba tax na bi fa mbooloo ma dajee moom nag ban ko jàppee fekk nañ ci moom mu yor laxasu yàmba mu nekk lu doy waar waaye li doy waar nga xam ne nii euh, démb lam démb ci guddi muy xibaar bu ñu dab muy euh, ñaari xale yoo xamante ni ñoo dëkk fi nga xam ne euh, mooy rëbës ñoom ñaari ñooñu nag wax nañ ne démb ci couvre-feu ci couvre-feu bi bi mu jotee maanaam 23h bi mu jotee ca nga xam ne mooy euh, poste bu Médina bi fa lañ defee soog mu nekk lu doy waar ku ci bëgg xam nag loolu leer ak na mu demee da dem ci seen YouTube Reubeuss TV mbokk yi lii laa andi woon tey euh, ci bi nga xam ne mooy toj toj xanaa du ma def mu daal di yaatal. Euh, jërëjëf Youssou comme ni nga ko waxee rek mais man tamit andi toj-toj yoo xamante ne nii yaakaar ko raw hmm. parce que tey fële ca gaaru Thier bu boo maraîcher. Euh, jàpp nañ fa benn rabatteur boo xamante ne nii ay atam moo ngi toll si 36 euh, ans mm-hmm. moom nag li ñu ko jàppee mooy que ni daf doon violer benn xale bu góor boo xamante ne nii ay atam toll na si fukki at ak ñeent mu nekk euh, lu doy waar foofu mais su ma jógee foofu tam damay jëlaale oto rek continuer ba dëkk bi ñuy wax Darou Mousty Daaru Musti tamit lu doy waar xew na fa mu nekk benn française boobu doon wuyoo ci turu euh, Baay Yaay Faal moom la ñu fekk ci néegam ñu faat ko faat bu ñaaw mais euh, ay atam toll woon na si euh, ñeent fukki at ak. juróom mu nekk lu doy waar ñaanal leen yàlla rek ñoom ñooñu yàlla yërëm leen taxaar leen aljana ba léegi tamit ñu dellu si fii ci ndakaaru dem ci cité bu ñuy wax cité Damel fekk fa lu doy waar mu nekk benn xale bu góor boo xam ne ay atam moo ngi toll si 14 ans moom moo jógee quatrième étage mu daanu ñàkk bakkanam sur le mu nekk lu doy waar ginnaaw loolu tamit dañuy jël oto rek dem ba dëkk bu ñuy wax Tambacounda fekk fa lu doy ndax ay ñaawteef dëkkatu ñaawteef yi maanaam Samba Boy ñoom ñoo armé wu dugg ci benn kër boo xamante ne nii kooku commerçant la fekk ko fa moom ak benn jerbaatam ba nangu nañ ci moom lu toll ci juróom benn million ci suñuy koppar mu nekk lu doy mais ba léegi dañuy desandi foofu rek ci Tambacounda euh, ndax lu doy waar xew na fa lu gën a doy loo xamante ne ni mbirum adultère la te adultère nag foo ko déggee mooy am jëkkër amu far Euh, loolu lañ fi def ndax euh, soxna si euh, jëkkëram da ko bett mu nekk ak faram ci kaw lal bi. Hmm, soxna Xadi loolu moom tegtal la lu yéeme la sa jëkkër dox ba bett la ci sa néegu far loolu nag lu yéeme la may mooy li ñu wax rek maanaam yàlla moom lépp looy def tamit dina bëri jàpp ne jàpp ne kenn gisu la bëccëg dina jot bëccëgu dara kaam mu weer la ndax am jëkkër am far tey dañoo seetlu ne yaatu nag léegi ci réew yi soxna Xadi waaw comme ni nga ko waxee rek am jëkkër amu far yaatu na ci réew mi te dañu koy bañ ndax ñun dagan ñu ko te kenn daganul ko ba tax na foofu lay jaaree bu ma génnee yéen ci toj toj dikk ak yéen ci suñu xalaat ay ca ñu dem. suñu xalaat ay ca ñu dem. suñu xalaat jërëjëf euh, suñu xalaat nag mu nekk lu yéeme loo xam ne xew na démb fee nga xam ne mooy Pikine muy euh, ci genn euh, waxambaane boo xam ne moom nag da doon séq ak benn xale bu góor boo xam ne ay atam mi ngi toll ci fukki ak ñeent maanaam daf ko doon tëddee mu nekk lu doy waar loolu nag soxna Xadi yi ñu bëgg cee sànni suñu ay xalaat rek soxna yi ñu nekk nag loo xam ne tey tey waaw comme ni ma ko waxee sànq rek loolu moom toj-toj la parce que ana góor ak sàkku moroomu góoram nekk na lu ñaaw rawatina nag mu nekk xale bu ndaw nga xamante ne nii da ko violé xam nga viol moom bu fekkee góor ak jigéen la sax euh, normal dagganul rek de mën na euh, mën na ci génn àdduna mu nekk lu doy waar rawatina nag muy góor nga si yàq avenir am Youssou même bu dul loolu tey mën na ko tàmmal loo xam ni moom euh, loolu noonu parce que tey jii def na ko loo xam ne xale boo xam ne ci atam mu ngi toll ci fukki at ak ñeent nga def ko nga jëf nga jëf ak moom jëf ju ju mel noonu tey mën na nekk mën na dem ba nekk euh, deret ci moom maanaam du ko bàyyi mu tàmm ko te loolu boo gisee bari na ñu ngi koy ñu ngi koy jiiñ wala bari na ñu ngi koy a ñoo ne lu mel noonu foofu lañ koy jëlee mu nekk loo xam ne lu yéeme la tey moom mënoon na dem wuti soxna parce que soxna yaa ngi fi boo demee ñaari soxna ñu may la ko moo gën mais ngay seq ak góor rawatina xale boo xam ne ay atam mi ngi toll ci fukki at ak ñeent soxna xale loolu waaw comme ni ñu ko waxee rek euh, lu yéeme la lu doy waar la parce que tamit euh, mën na yàq avenir u xale bi leneen mënoon na nekk ci xelam mais instant yi mu dugal ci boppam bi lii mën na jàpp ne lii mooy wey mais ñu ngi ñaanal xale bi rek euh, yàlla génnee ko ci situation mu nekk ba nga xamante ne nii lépp lu xeetoo ak loolu dootu ci wax te dootu ci jëf ba tax na képp koo xam ne yaa ngi def lu mel noonu yàlla ci yàlla jëlee bu fekkee loo tayal ak loo tayul ndax loolu lu yéeme la te baaxul nag ci askan wi rawatina nag ci sunu réewu Sénégal yi ndax mi ngi bëgg yaatu yàlla ñu yàlla musal ci loolu

am na ay pochette day jaay ay dàll lépp loo soxla lu nekk loo xam ne day yokk taaru jigéen rek am na si moom te am na grand dame am na mineur am na lépp daal ku dem ku na daal di fa gis sa bopp moom nag soo bëggee si yi ma sol wala yeneen yu ko dàq dangay woote si numéro bi nekk 77 526 67 15 wala 76 693 33 10 mais ba léegi tamit du ma dem te sama doom ju baax jii di Jadista Makeup nekk fii ci Rëbës. Euh, moom moo ma génne fii ci Makeup nit ku baax la moom nag numéro téléphone mu ngi nekk 77 386 08 43 nga dem si moom rek sa aajo faju acca ñawkat bi nag moo fa jaarati moo borom xel comme design moom nag moo fi jaar nii euh, moom nag boo bëggee dem ci moom da ngay def 77 150 61 71 moom nag mi ngi nekk ci bi nga xam ne mooy Roxy euh, en face ak euh, marché Tilène moom boo demee ci moom mu defal yu mel nii wala yu dàq nii macha allah soo naxatee xanaa ma jox la bala ma tëj rek nga tàggoo. waa ñu soo mbokk yi ñoo leen di jox dig daje bu ëllëg incha allah ci beneen numéro. jaa ngeen jëfati kon digga bor la ñàkk ko jëfe tamit war la li leen dugaloon xanaa nga di leen jox dig daje samedi incha allah ci beneen numéro. Reubeuss TV mooy suñu telee la chaîne de la vérité. tasaare leen ko.